Salam les fidèles internet et abonnés de Antv TV amati wara Lol, Wara dans ak dalal suñu deuxième numéro sport New Vision 13 ancien international sénégalais et ancien de la Jeanne d'Arc notre grand frère Lamine Boub aussi nek le président DFC Dakar Football Club grand bi ginnaaw bi la ziar la ñu bàyyi internet yi. mais je ngi di commencer par euh, di sant à nga xamni ñom ñoo pour euh, xam Lamine mhm. di nuyu tous les internautes ah, di di yalla mu fekk ci jamm mhm. ah, te ñu ko déglu nak bu baax mhm. ah, ko xel machallah jërëjëf grand Je nañu vraiment aussi de le remercier le faire que nga wuy suñu may ñu opportunité bi ñu Sénégal mais aussi jël ci parenthèse

c'est affection bi ma am ci samay élèves ci mhm. samay mère mhm. euh, kii ñu koy sportif mhm. metti na aussi par rapport à l'école de football ah metti na aussi ci Sénégal ci Sénégal ndax euh, Sénégal dañu bëgg sport ñu bëgg sport dañu bëgg dajaloo dañu bëgg nek alors euh, Covid bi mu ñëwee dafa

parce que aussi amna lu am solo lu mu indi moy dinañu aussi précaution par rapport à beaucoup de choses La mhm. Covid bi dina mëna ci mhm. mhm. est-ce que li ñu doon def euh, mënuñu ko won nous di def Nous waaw lu inconvénients comme des choses positives indi par rapport à l'éducation et au civisme dans ce pays je pense que amna solo moy am inconvénient mais am na yoo xam ne positif indi na mhm. par rapport à l'éducation té xew-xew aduna bu ne rek jangal la wara am jël ci lo xamne vraiment après à l'avenir dina mëna a jëriñ mais tay sa biir waxtaan ma mhm. nga dégg nga di par rapport ak sa xalé yi moy mhm. centre bi nga géré bëggoon xam yan catégorie la mo composé bon man depuis 2000 2007 la dugul mariste mais dama am suma benn xarit bo xamne yàlla na ko yàlla mm-hmm. Grégoire dafa amoon fi ben restaurant mm-hmm. boobu maa ngi dëkk point daf ma daan wax toujours ñëwal Maris nga ubbi fa école de football ma naan ko ah Maris dafa sori woon ah man boobu ngi dëkk point mm-hmm. Maris dafa sori daan naa fi ñëw di ñëw si restaurant ak sama xarit Wali Bàcc bi mais daf ma waxoon wax wax wax mais may bañ pendant des années mais xoolal li yàlla di def fekkewu mu génn àdduna

équipe bu yaraax yi bi ñu daan ñëw fii parents yi sax dañu daan reetaan ndax dañu daan dóor ay dix zéro ki ay et mais mhm. bi ñu demee ba xale yi jàng jàng jàng mhm. affaire bi dafa wëlbatiku nag léegi ba xale yi ñoom ñoo commencé nag di dóor waa yaraax ak ñeneen ñi nekk si biti donc liggéey boobu mhm. ma jot ko def fii am na benn entraîneur boo xam bi ñuy wax Koto waaw Koto defe naa xam nga ko sama xarit la waaw barki démb rek la ma woo naan ma billaahi nañ la sant ndax fii ku fi daw tey ba dóor bal ngir yàlla ak yow mais nag may sant parce que parents yi Maris dañ ma jox cër mhm. seen i doom jox na cër mhm. doo dox mi du dox mi te ki sax day nekk monsieur Lamine monsieur Lamine donc affection boobu effectivement mhm. bi ma am si biir Maris ba pare ñi fi nekk jox ma parents jox ma cër xale yi bëgg ma man may dama ragal ni parce que mënuma ko ndax yi seen ngi football champion. Un senior un junior un cadet un minime nous mhm. ngi en débutant un en benjamin. donc je veux dire que je suis dans toutes les catégories. me hein, di jéem côté bi donc côté B amul benn équipe bu boo xam ne dina football championnat euh, ou bien équipe boo xam ne affilié na à la fédération sénégalaise donc Dakar Football Club bi mu duggee fii ba léegi dafa permettre les jeunes de Mariste mhm. pour ñu mën a tàngat seen yaram pour ñu mën a dem naa ba nekk sax président euh, équipe Mariste de, équipe Mariste ah, mais après nag dama ni leen bon dafay metti dafay metti donc yàlla daal moo ma dimbali ma ñëw dugg Mariste waa Mariste adopté mi maa ngi leen di sant di leen gërëm mhm. te aussi waa Yaraax parce que am naa fa ay xarit ndax Babou Babou coach Babou moom si moom l'a commencé sax di def ay match ak équipe am. Mhm. Aziz Babou Aziz Babou. D'accord. accord laa commencé di def ay match ak équipe am. di gërëm aussi Ousmane Seck. Ousmane Seck. Ousmane Seck euh, bi nek Fos-sur-Mer. effectivement mhm. Nek Fos-sur-Mer. Mhm. ndaxte moom Dakar FC bi mu jëké dem en Europe mom mo dem ak est East invité Dakar Football Club France. Mhm. pour un euh, stage une semaine. Je mhm. suis le maire des Maris. Mhm. parce que kilifa Maris. kilifa ah, mais di sama fans. Amdi Moustapha suma jour au Sénégal. Je sais coupe du monde de de football en demi finale. le Sénégal mais sànq sa biir waxtaan. Mhm. wax nga wax ko def. te fi au niveau de la commune de Hann Bel-Air mu am ben amical des écoles de football. mais dama gis sa biir waxtan mhm. da nga ni Aziz Babou mom vraiment. Mhm. am na approche boobu seen diggante ñaar. mais lu toll ni Amical des écoles de football. ak yow ak njëriñ bi nga mëna am. par rapport au football yara, mais ba léegi déggu ma nga wax ci par rapport Amical des écoles de football j'ai tendu la main. tu as tendu la main. j'ai tendu la main je suis allé même là-bas. mais je sais pas ce qui s'est passé. Même Ousmane m'a dit reste là-bas parce que tu es allé leur tendre la main. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Ah, mais j'ai tendu la main. Tendre la main comment parce que bu ñu des écoles de football. waaw mooy que ñëpp ku ci commune de la commune. Mhm. am nga ci am nga ci cër mais quand tu m'as dit tu as tendu la main. Mhm. nan nan. pour collaborer avec nous. je pense que nous lolo waral sax. Euh, may dugal bu may def ay tournoi équipe bu yaraax yi mhm. yaa ngi dégg mais ba léegi gisuma mhm. gisuma ñu tendre ma la main aussi pour me dire tu peux venir loolu mooy problème bi mhm. mais man ku ma gis xam na ni mariste ak an ak yarax est-ce que tu comprends football rek lay dox tout dans tout le Sénégal je ne fais que le football et je suis partout avec le football daanaa dem ba Dalifort sax di fa football ay tournois waaw donc je pense que aujourd'hui, euh, moi je veux bien, je veux bien entrer mhm. dans euh, l'amicale. Mhm. Je veux mhm. bien entrer dans l'amicale, mais aussi il faut qu'on accepte. Effectivement. mon problème. Accepter est-ce que mairie bi xam commission spéciale pour cela? est-ce que nous savons vraiment cette existence ici euh, ak relation ak euh, bi que vous ko bu baax Je def dara. je binduma mais ngi maire bi mosuma jox me francs mhm. mhm. Magnifique depuis du compétir en championnat mais je n'ai jamais reçu un franc de la mairie d'accord mais ça ne me dérange pas ah, donc je pense que à dara lu maire plus pas plus tard que le trophée Guitambert qui s'est passé au mois de février le maire a reçu sa lettre d'invitation Je mhm. veux dire quand je partais en Europe aussi j'ai adressé une lettre à la mairie mais bizarrement quand euh, l'équipe de, la, sélection de Anne Beller Yara va en, France, moi, on ne me contacte pas. Je n'ai pas de joueur qui vient là-bas. Alors que je l'ai une, fois décrié à Aziz Babou. Même les, les, gens de force qui sont arrivés ici, je leur ai dit, mais vous, vous, vous êtes en train de faire que pour Yara. Mais c'est Anne Beller Yara. Par la commune, quoi. Ah c'est mhm. Anne Belair Yara. Mhm. Ah. Mhm. ils m'ont dit non, c'est pas nous, c'est le maire. Donc je pense que nous partage Aujourd'hui, je suis membre de la Chambre de résolution des litiges de la Fédération sénégalaise de football. Je suis président des anciens footballeurs de la gendarmerie de Dakar. Aujourd'hui, je suis peut-être, je serai peut-être dans une semaine, parce que l'Assemblée générale des professionnels du football, peut-être que je serai le président, parce que c'est moi qui ai commencé euh, à, demander, euh, comment je vais dire, demander le droit des sportifs. Mm. Ah, les entraîneurs qui l'ont fait aujourd'hui, ils savent très bien que c'est moi qui l'ai commencé, mais ils ne m'ont pas invité. Ils ne m'ont pas parlé. Mm. Alors que Youssou Dabo le sait, parce que quand Jamil Faye me, me demandait de venir mm. pour parler à ses joueurs et aux professionnels, Youssou Dabo était entraîneur de Guédiaway. Et dans une de ses interviews, il a il a dit, le la seule personne que j'ai vue s'inquiéter de la situation des footballeurs euh, des, des, des acteurs du football professionnel, c'est la même chose. Si aujourd'hui les entraîneurs le font et qu'ils ne me contactent uh-huh. pas. Uh-huh. dinañ ñëwaat foofu non mais il faut ñu taxaw ci tolluwaay football yaraax bi. ok parce que mënuñu am ba opportunité bu mel yow ak par rapport expérience bi nga gagné. Mm-hmm. ak par rapport sa bag ak par rapport sa niveau bi nga nekk. Mm-hmm. tey ñu mën am des écoles de football bu toll noonu nga ni tànn nga une fois essayez nga de waat doxul as nga nekk fii ak li nga mën am ci football bi yaraax yëpp mm-hmm. nan nga gisee tolluwaay Wow, je pense que je suis ko xoolaat war là. ko xoolaat ndax man dama gëm dafa équipe mhm. parce que tey bon qui ci footballeur rek wax un Beler, mhm. mais yaraax il qui footballeur. football. Mhm. am Moustapha Fay, Baba Ndiaye. lay euh, Abou Abdou amna amna am am na jour xam-xam bo, xam ne mhm. bu nekkoon GA dama faté tour bi. et aujourd'hui au sein des maris, ici il y a des joueurs qui jouent en première division. effectivement est-ce que vous comprenez. Mhm. Ah. donc je pense que ni euh, war nañu mun am équipe bu mag. mais loolu si wayu ñi jité commune bi la waaw ak si way nit ñi nangu associé wu. Mhm. parce que man dama gëm ni man j'ai amna équipe bu ñuy wax Dakar Football Club. mais man yaakaruma xalaatuma ko sax nan damay dem que professionnel parce que un moment, moyen mënuma ko tey bu ma équipe bu mel toll nii euh, Yara, ñu am ak an an ñu am équipe bu mag bi joué première division mhm. mais man damay dekk en division régionale di leen pourvoir ay jouer. effectivement yor sama école de football mhm. Non, bu ma ne ni sax partenariat boobu daf may arrangé mhm. yaa ngi dégg ba nga toutes les toutes les petites équipes équipe bu mag bi la ravitailler je pense que loolu moo war a mën a am. effectivement waaw te gëm naa ni ku mel ni Amdi ak man ak ñeneen ñi nekk biir Yaraax ñoom Baba Ndiaye de mm-hmm. ñun ñëpp ay internationaux de football ñu ngi dëkk fii. Mm-hmm. kon war nañu mën am dara par rapport à ce football à Yaraax. tey ñuy waxtaan. Mm-hmm. actuellement Yaraax mi ngi tollu ci défar benn équipe comme ni ngay waxee noonu ñu tuddé ko ISB tay stade bientôt mu paré ñu xol projet yooyu non opportunité bi ci mëna am tay ñu am leen yeen genre yu mel non donc ça veut dire que ne pare nga pour ëllëg. bis bu ñu waree defar lu mel noonu nga tam nga am ci benn taxawaay. buñ ma woowee jox ma li ma moom. jox ma li du ma xëccoo nag man damay nit boo xam ne du ma xëccoo. soxlawu ma lu ma yàlla joxul. yaa ngi dégg ñi ko ŋànk buñ ma nee soxla nañ la. Mm-hmm. ma dem liggéey parce que man liggéey rek laa xam te football rek laa xam fuñ ma woo nag ci football mun naa leen wuyu muy si terrain bi muy hors ndax ba légui maa ngi Sénégal maa ngi Dakar maa ngi Mariste mais lool rek lay def dugguma ci leneen loo xam ni bokkul si football parce que dafay feeñ dafay feeñ ba gestion par rapport ak terrain bi nii parce que au temps ba nga ñëwee gis nga ni bi muy démarré projet bi da ngay xool vraiment c'était ok quoi mais da ngay ñëw chaque fois booy ñëw ngay gis affaire di gën a yàqu kenn géré wul kenn deful dara te au moins boo investir lu toll nii ci alal war na am benn gestion bu ko def waaw normalement mais fii booy wax dañu naan terrain Lamine Mboup la ñuy wax

Euh, espace bo xamni xalé xale yi maris yi dañ fi waroon fo mhm. way yarax yi ñoo mun fi fo alentour bi fi maris yalla ñi ñi def seen match ñuy def seen tournoi je vous montre gis nga dinaa leen yónnee vidéo tournoi trophée Guitambert bi ma def fii mhm. équipe yi nga xamni ñi ngi jógee Guédiawaye ñi ngi joggé ay Ngor ñi ngi ñew ñoo ñu def fi tournoi mais le maire a été invité le chef de quartier il a remis son trophée mhm. pourquoi le maire n'est pas venu pourquoi le maire n'est pas venu loolu ben laaj la bo xamni war nañ ci mën def jàngat mën ci def dal ba mën xam parce que intérêt yi mhm. ku football mën jëm kaw il nous faut qu'on soit unis mhm. parce que mënuñu mooy wax mënuñu am potentiel richesse bu toll nonu ci ay ñu anciens internationaux mhm. ñoo xam am nañu bagage sen carnet d'adresse machallah ñu taxaw football bi soxé ni parce que si on parle de la commune nekatul yara tefes wala fay nak feneen. on parle de la commune. moy lepp lo xamni goxna ci commune bi. je pense que ni ñëpp bu ñu àndee nekk benn. Mhm. yàlla mën na ci def résultat mu am. parce que moy la lim nga ko. Mhm. on peut pas avoir ñu melni yeen ay Baba ndjay ñi am fu mu tu vois Tony Silva mi ngi dëkk fi fi la dëkk waaw fii à la Maris la dëkk tu vois. Tony Silva habite ici. effectivement. yaa Malick Diop fu mu am kër. voilà fi fi la am kër. si ginnaaw immeuble loolu noonu mën nañu Pape Boubacar Diawara bu sëy fu mu am kër Mariste. Mariste Dame fu mu am kër Mariste. maam góor Diazaka mi ngi fii doomam mi ngi sama équipe ñaari doomam mi ngi sama équipe. li ngay bëgg wax rek mooy que ni doole bu tasaaroo rek. du am njëriñ parce que doole moom fi mu amee njëriñ mooy ñëpp indi seen doole parce que li nga wax ni dafa dafa dafa dafa xaw a doy waar parce que commune bu toll nii am richesse bi toll noonu. boobu ba léegi mënuñu.

wax nañ ko biir sa sa biir sànq sa biir wax ak li nga fekkee ni mu bëree te yàgg fekkee ay et ay générations. ay génération et même chose tamit à la fédération fekkee ci lépp existence fédération yëpp noonu tey nan nga mën a jàngalee football football Sénégal bi. moi je dis que faut régresser mm-hmm. le football Sénégal. Mm-hmm. faut regresser. Mm-hmm. il ne faudrait pas que l'équipe équipe nationale rek teg ci kaw le football Sénégal faut progresser. non non ñu indi professionnalisme football Sénégal faut progresser. Non. Aujourd'hui, on parle de professionnalisme. Les joueurs professionnels sont payés à 25 000, à 50 000, à 75 000. Alors qu'avant, quand les équipes étaient, n'étaient pas professionnelles, les seules équipes d'entreprise qui étaient là payaient plus de 100 000 francs. Les clubs traditionnels, joueurs, ils donnent soit ils ont ligué, jëndal leen engin est-ce que tu comprends wala ñu ñu leen di fay xaalis wutal leen fa ñu ne ñi war a jàngi ñu dugal leen université wala ñu dugal leen ci ay école pour ñu jàng ba pare di leen yor waaw parce que jour boo gisoon da nga am parrain boo xam ni moo la daan toppatoo. daan toppatoo jàppoon na. may wax dafa am fu ma ko teg. 2009 mhm. nous sommes en 2020 demal laaj joueurs yi nga xam ne jaar nañu football professionnel par par bàyyi seen football football ñoom ñëpp ay chômage alors que vous njëkk joueurs dans football qu'est-ce si chômage da ngay liggéey mbaa nga jàngi équipe dem bay def cours de vacances lu mel ni gendarme cours de vacances donc aujourd'hui c'est moo waral ñu ni ñun le football sénégalais a régressé. mais là, il y avait des dirigeants qui avaient les moyens. qui aimaient leur club. Mhm. et qui ne cherchaient pas à vendre leurs joueurs. Mhm. Ils, cherchaient à ce que leur club soit productif, que le club soit victorieux. victorieuse. Ils mettaient l'argent qu'il fallait. Si je dis que c'est important, il y a Il gens Il faut pas nous focaliser. Nous avons des gens qui ont Liverpool, Ballon d'Or. Il faut que nous regardions par rapport à ceux qui de football. Sur 10 ans, sur 5 ans, il y a un chômage de am. Parce qu'il a 25 ans, de jouer en championnat Sénégal, en Ligue Pro. Si on fait 2 ans, 3 ans, mhm. après, pouvez arrêter. Ça veut dire après, le chemin est parce métier. mais c'est parce que sommes si seen nous parents parents aussi euh, bu ni bi réussir ce football. Mm-hmm. ñi encadrer aussi de nous wax ñi dëgg parce que yo éducateur les bi xam nga ni talent bu mu football de talent première division Sénégal mm-hmm. ni deuxième division Sénégal. Mm-hmm. mais parents na wuti métier mu jël football bi def ko euh, fawukaay mun na football national mun na football en division régionale mu nek passion mais dina jang dina am métier métier mais foot mais foot bi ci ñan la politique sport bi bi joggé ci état wala à la fédération fan la fay bi fan xam nga aujourd'hui maa la koy wax sax nga ni dinañ ci ñëw xam nga aujourd'hui les entraîneurs ont fait le syndicat le collectif des entraîneurs de football des entraîneurs de football ils sont syndiqués. Mhm. Donc, ce qui veut dire que ni aujourd'hui kenn d'autre jël entraîneur ñu koy waxte suba nga de ko droit. les joueurs sont en train de se mobiliser. Mhm. moi j'ai fait le défilé du 1er mai 2009 pour réclamer le droit des sportifs. ma les entraîneurs waroon nañ ma invité je suis coach en même temps ba défiler, ils devaient au moins m'inviter mhm alors que je suis le premier à les défendre au niveau des médias mhm. le premier à faire un défilé mais j'ai eu la reconnaissance des jours ils m'ont contacté pour me dire c'est toi c'est toi qui vas nous guider mhm. et le 11 le 11 juillet on fera l'assemblée générale des footballeurs professionnels du Sénégal mhm. à la CNTS FC nous, nous bu l'État le ministère du travail va contacter les clubs. Vous avez des travailleurs. Travailleurs, il faut les inscrire euh, euh, au ministère du Travail. Il faudra après, il leur doit trouver un bulletin de salaire. Il faudra leur payer leur sécurité sociale. Il faudra préparer leur IPRES. Mhm. Il faudra payer des impôts. C'est ce que je a am Les footballeurs nga réussir au football au Sénégal ndax di nga xam ne après di nga am retraite. Mhm. ba di nga am lo xamni ne mën nga si jàpp. yow nga nek ancien nek ci GIA. et puis wax nga ko legui gor gui nekone président. Mm-hmm. tay lolou yeb ban sentiment nga am par rapport à la GIA ak situation yi mi jur wa day am la gendarme ay beaucoup de problèmes da nak dafa bari problème d'argent problème de personne lolou loolu moo tax Jeanne d'Arc daanu ah, dafa am yu bari yo xamni ne mënu ko wax yu xew ci biir gendarme gendarme tay bu amé problème ñi fi jaaroon ñëpp dañ ci bokk. ñu Momar Ndiaye ni Omar Seck. comment dañ ci bokk. ñom ñëpp ñoo ñoo ñoo bokk ci li daaneel gendarmerie de Dakar mais ken mënul wax lé est-ce que comprendre mais amna na ñoo xam ni tey dañuy jóg pour defaraat waaw té affaire de division amatu fi affaire de division amatu fi. Mhm. ñi ngi def lépp pour que Jeanne am doole. parce que les anciens internes les anciens footballeurs de la Jeanne d'Arc ont une amicale dont je suis le président il y a dooleel gendarme il y a CNS comité national du support de la gendarme aussi Mangi ngi jaale maa ngi leen di jaale sax parce que dañu perte seen seen président. effectivement grand perte tey tey laa demoon si dëj bi effectivement donc je pense que ni la gendarme va bientôt revenir incha allahu rabi te ñun am nañu moyen sax fay plus que ñi nga xam ne ñi ngi fay en première division. te dama lay xamal benn bu dee bu doon moyen rek quand kon ja mi ngi première division mais il faudra que aussi ñun aussi ñu def effort parce que boo bëggee yëg da ngay mettre la les moyens qu'il faut waaw ah. man wax naa leen ko quand vous serez au même niveau que les joueurs de national votre montée va être difficile Barça bu bëggee la Ligue des Champions day wute ay joueurs yoo xam ne ay voulez aller mhm. yow da ngeen bëgg a première division da ngeen dem jouer jëli de première division fay ko xaalis bu weex pour mu mun a seen kon ñu ngi leen di ni que émission wu sport new vision 13 Nous ñu amoon ci suñu ben gan bu mag muy notre grand frère Lamine Boub doon bëgg wax doon football football Sénégal mais jëloon ci une parenthèse doon ci waxtaanee football football pour terminer. on ne peut pas faire une émission sport. Mm-hmm. actuellement ni football au Sénégal sans autant donner un message à la jeunesse. il faut pas vous tromper je demande aux parents aussi de ne pas se tromper. Mm parce que le football c'est pas donné à tout le monde. effectivement gis nga école da ngay dem Ce c'est pas tout le monde qui réussit à l'école Le Le ah, football aussi du ñëpp ñoo réussir ah, parce que nous parce que football Nous ñoo xam réussir ce football Vous dégg am ñoo xam ni footballeur mm-hmm. ah. Les parents parents aussi bu ñu bàyyi seen doom rek ni leen dama mëne football ñu gëm ko bàyyi loko jang ak sétu mu bàyyi jang waaw jàng bi ak métier bi dafa am solo waaw parce que tay ki nga xamni normalement ki nga xamni dafa commencé bëgg football commencé 6 ans bu demee ba 18 ans bu jangé normalement warna am diplôme warna am métier pour mëna continuer football bi. Mhm. bu dé def ci réussir bu dé nak xam nañ ni mënul réussir ci football bi parce que éducateur yi am nañu vision bobu xam nañ ko ni nous mënul dépasser national nañ ko wax parent bi nañ ko ko xamal moom mu continuer jang ak mu wuti métier mu bi def c'est le message que je veux que les gens comprennent il y a des sports études nous dem ci sport études jëm fa dem ci sport études jëm fa seeni vraiment nañu le fait que ku melni kilifa bu

je serai présent dans tous les domaines du football. Mhm. Inch'Allah. dis. merci beaucoup. vraiment une bonne fin de semaine mhm. hein, et un bon début de semaine. Merci beaucoup encore grand. Voilà li lañ une cette émission deuxième euh, numéro sport New Vision 13 Je remercier les techniciens yi leen jox dig daje ci numéro sport New Vision 13 merci beaucoup.